ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom di liggéey lii ñu def nag la ak goj bu ñuy roote ci teenu yàlla te sa jëfandiku ak ñun ñii kat ku ci nekk bu demaa dina xoolaat boppam xam ni daje nañu ak nit ku baax yal na la yàlla fay sa liggéeyu maam bii ngay def lii nga ciy def yal na la ko yàlla fay ngay dund te yàlla jàppale la mu ne nu ànd leen ak direction bi yëpp ndax structure boo ci jëlee directeur général directeur télévision directeur des programmes directeur radio ba ñu jax délégat directeur des programmes ñëw waa journal observateur ñëw IGFM ñëw ñun ñëpp ñu ñëw woon nañu fii nuy jëm si am na loon fii wut si wut si bu njëkk bi nag mooy indi suñu yéene bokk ci liggéey sëñ Touba mag ñi na boo bëggee am ngërëmal ngërëm liggéeyal ku yàlla gërëm bo yëgalee ku yàlla gërëm am ca ngërëmal ay li dàq sëriñ bi mooy yow lanu ñu féetewoo ci bu ñu ñëwee ba pare bu ñu bëggee añ rek fii la lii nag ku tàmmul daara tàmmoo kër mënoo ñoo xam ne bi ñoo xamoo lim bi laajoo ñu wàcc macha allah mbooloo mi toll nii ku ci yow yàlla ko yàlla fay ñu lay boole nag di la gërëm indil yi yu sunu di la wax ni lii ñuy def ci màggal bi bu nu mënoon fukkam def ko ndax ban ko defee ba nag ni njariñ rek lañ ci gis yàlla def ci wér mais yàlla def te déggoo bërëb bu ay ndaw nekk ñëpp amee xam-xam tubaarkàlla bu leen amul ñaanu mag mën na noo féewal